julli bii ah kuy jullit ku dul jullit kuy tiijaan ku dul tiijaan ñépp gis nañ ci seen bopp teel a chrétien yi war yi dama ni sa jëf waxuma Sénégal waxuma Thiès waaye àdduna bi yépp la daj dama ni war nañ laa décorer war nañ laa sant war nañ laa gërëm am na réew yoo xam ne buñ la gisoon dañ lay xëccoo jërëjëf soxna Aïda Saliou Thioune yal na yàlla fay la yal na yàlla guddal sa waaye nag dama ni ku ñaaw ku ne kala dàqala ñaawal waxin la nag jërëjëf jërëjëfati Serigne Bacco jërëjëfaat Serigne Bacco waaye bokk taalibe yi na riir waay jërëjëfati Serigne Bacco waaye nañu ne jar jërëjëfaat Serigne Bacco jërëjëfati Serigne Bacco aw góor universel Serigne Saliou Samb ak universel Boubacar Konaté waxtaan wi neex na lool waaye bis bi day bisu cant di bisu mbég bu ko defee dañuy war Omar Saw mu bakk sëriñ bi mu yëngu Omar Saw bismillah jërëjëfati sëriñ Béthio bànneex bi nuy lëmbaaje ay nee leen bànneex nuy lëmbaaje sëriñ Saaliw Mbàkke yi bànneex bi nuy lëmbaaje ay waay bànneex bi nuy nuy lëmbaaje ay nee leen bànneex nuy lëmbaaje sunu xel mbaa sunu xol sunu xel mbaa sunu xol lu nu yëg mbaa lu nu yëgul yaay bànneex bi ñuy lëmbaaje Sëriñ Saaliw Mbàkke bànneex bi ñuy lëmbaaje bànneex bi ñuy lëmbaaje Sëriñ Saaliw Mbàkke bànneex bi ñuy lëmbaaje bànneex bi ñuy lëmbaaje Sëriñ Saaliw wooy bànneex bi ñuy lëmbaaje sunu xel mbaa sunu xol waaw waaw sunu xel mbaa sunu xol waaw waaw lu nu yëg mbaa lu nu yëgul yaay bànneex bi ñuy lëmbaaje diw Mbàkke bànneex bi ñuy lëmbaaje Sëriñ Saali wooy bànneex bi ñuy lëmbaaje sunu xel ma sunu xol waaw waaw sunu xel ma sunu xol waaw waaw lu nu yëg ba lu nu yëgul yaay bànneex bi ñuy Sëriñ Saali Mbàkke bànneex bi ñuy lëmbaaje Sëriñ Saali wooy bànneex bi ñuy lëmbaaje yow yaay yaay ka jene waaw waaw jali yow yaay ka jene waaw waaw léegi yow yaay ki koy lëmbe yaay bànneex bi Serigne Saliou Mbacké bànneex bi ñuy lëmbaake bànneex bi Serigne Saliou Mbacké bànneex bi ñuy lëmbaake sunu xel ma sunu xol waaw waaw sunu xel ma sunu xol waaw waaw lu nu yëng ba lu nu yëgul ay bànneex bi Sëriñ Saaliw Mbàkke bànneex bi ñuy lëmbaaje ay bànneex bi Sëriñ Saaliw ay bànneex bi ñuy lëmbaaje sabu guddee la podal waaw waaw sabu guddee ba la podal waaw waaw sabu guddee la podal waaw waaw nu fanaanoo di la way waaw waaw nu yemoo di la waxtaane bànneex bi Sëriñ Saaliw ay bànneex bi ñuy lëmbaaje lëmbaaje bànneex bi Sëriñ Saaliw Mbàkke bànneex bi ñuy lëmbaaje yow yaay ka jëne waaw waaw yow yaay ka jëne waaw waaw yow yaay ka jëne waaw waaw yow yaay ka ko lëmbe yaay bànneex bi Sëriñ Saaliw Mbàkke bànneex bi ñuy lëmbaaje bànneex bi Sëriñ Saaliw bànneex bi ñuy lëmbaaje sa bëggu dee la podal waaw waaw ab gunte bala podal waaw waaw fanaanoo di la way sunu yemoo di la waxtaane banneex bi Sëriñ Saaliw Mbàkke banneex bi ñuy lëmbaaje banneex bi Sëriñ Saaliw wooy banneex bi ñuy lëmbaaje cëri yow yaay këcëne waaw waaw cëri yow yaay këcëne waaw waaw yow yaay këkoy lëmbe yaay banneex bi Sëriñ Aliou Mbacké bànneex bi ñuy lëmbaaje ay ne leen bànneex bi ñuy lëmbaaje ay ne leen bànneex bi ñuy lëmbaaje ay ne leen bànneex bi ñuy lëmbaaje ay ne leen bànneex bi ñuy lëmbaaje ay bànneex bi ñuy lëmbaaje ay ne leen bànneex bi ñuy lëmbaaje ay ne leen Mbacké yaa nu teral waaye Mbacké yaa nu tefal waaye Mbacké yaa nu teral lee Mbacké yaa nu teral lee Mbacké yaa nu sagal waaye yaa nu sagal waay waaw jaara kañ jaaraba ko teral nga may sagal nga ma. Ah, lay lay lala. Serigne Saliou la amul woon kon la mbay ñaaw. Mbàkke teral waay. Mbàkke yaa teral lee. Mbàkke yaa teral lee. Mbàkke yaa teral lee. Mbàkke yaa nu teral waay. Mbàkke yaa nu sagal waay. Njaay jaara kañ jaara bako tan di ñina tiral nga may sagal nga nooy ah, lay Saali woo buñ la amul woon kon la mbay ñaaw Mbàkke yaanu teral waay Mbàkke yaanu teral le teral waay Mbàkke yaa nu teral waay Mbàkke yaa nu teral lee jaara bako tey ma jëloo teral nga may sagal nga ah, noon lay lay lala sëriñ saali woo buñ la amul woon kon la bay ñaaw ku bëgg sona ay da loxo loxo ku sopp sona ay da yëngul yëngul ku bëgg sona ay da loxo loxo ku sopp sona ay da loxo loxo mbàkke yaanu teral waay mbàkke yaanu teral waay mbàkke yaanu teral lee mbàkke yaanu teral lee yaanu terale Mbakke sagal waaye Mbakke yaanu sagal waaye jaaraba ko tay ma jëlloo teral nga ma sagal nga ma lay lala sëriñ saali woo buñ la amul woon kon la mbay ku bëgg sëriñ be ca loxo ku sopp sëriñ be ca loxo ku bëgg sëriñ be ca loxo ku sopp sëriñ be ca loxo yëngul may yaa ko jàllal waaye. may yaa ko jàllale. waaw may yaa ko jàllale. ni may yaa ko jàllale. may yaa ko jàllale. ni may yaa ko jàllale. nan ko jàllal jàllal waaye. nan ko jàllal jàllal waaye. waaw sëñ Béthio yaa ko xëy taal taal bi añ na teral nga maay sagal nga noo lay lay la la. Sëriñ Saali woo buñ la amul woon kon la waay nee na Mbàkke yaa nu teral waay ni Mbàkke yaa nu teral lee waa Mbàkke yaa nu sagal waay ni Mbàkke yaa nu sagal waay Mbàkke yaa nu teral lee Mbàkke yaa nu teral lee waa Mbàkke yaa nu sagal waay ni Mbàkke yaa nu sagal waay jaara kañ jaara bako woo i jaamam baa ngi. waaw waaw. إلا يخاد اللهم لم يكن إلا يخاد اللهم لم يكن إلا يخاد اللهم لم يكن ولا يكون أبدا لملكنا تجامم باقي وعاوي باقي ليسا كي مجلدكم مصنع أيضا سرين سالي واي جامم باقي لمبيرم باقي ay waay i ka mu jël dim ku ñaan sëñ bee conge ay waay la illaa yaxaadalawma lam yakuni la illaa yaxaad اللهم لم يكن لا يخاد اللهم لم يكن ولا يكون أبدا لملكني تجام مبانجي واو أمير مبانجي ليسان كي مجندبكم يجمع صنع أيضا سري سالي وإجام مبانجي واو أمير مبانجي أكا مجندبكم يجمع be jonge ayo mu bangi amiiram baangi kaki mu jël def ko muy jëmam sona ay daangi jaamam baangi amiiram baangi ka mu jël def ko muy jëmam suñ beeconge ay waana illa ya xaadalaahuma lam yakune illa ya xaadalaahuma lam yakune illa ya xaadalaahuma lam yakune يغاد اللهم لا يكن لا يغاد اللهم لا يكن ولا يكون ابدا لممكن تجام بانجي وعامر بانجي ليس كي مجلدكم جب صنع ايدا سري سالي وايام بانجي نبير بانجي ليس اكم مجلدكم جب سيبي جوجي ايوان الا يا خاد اللهم لم يكن الا يا يغاد اللهم لم يكن لا يغاد اللهم لم يكن لا يغاد اللهم لا يكن لا يكون ابدا لممكن سجام مباغي واو واو امير مباغي ديسان كي مجل دفكم جم صنع اي سرين بيجون يا مباغي واو واو امير مباغي ديسان اكم مجل دفكم جم سين بيجوغي سجام مباغي amiram bange jël def ko muy jëmam sona ay da Serigne Sali waay jamam bange amiram bange ki mu jël def ko muy jëmam Serigne Béthio nge la ilaha غاد لهما لم يكن إلا يا غاد لهما لم يكن إلا يا غاد لهما لم يكن إلا يا غاد لهما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن بسجام باقي أمير باقي كي مجلدف كم جوم ثنائي سري سالي وإجام باقي ni miiram baange ak mu jël def ko wi ñëwam siñ bee jonge waawaawe ndeysaan ki mu jël def ko Sëriñ Saali woo i jaamam baa ngi ni mbiram baa ngi ak mu jël def ko muy jaam sëñ Béthio Sëriñ Saali woo jaamam baa ngi waaw waaw mbiram baa ngi waaw waaw ak mu jël def ko muy jaam sona ay Sëriñ Saali woo i jaamam baa ngi ni mbiram baa ngi ak mu jël def ko muy jaam sëñ Béthio Sëriñ Béthio jaamam baa ngi Sëriñ Saaliw ay jaamam baange di biiram baangi ekki mu jël dib ko ñaan sëñ be jonge lang sab jaama solo day sang bi xaacu ngir di la way sang bi mbàkke yaay borom bi lang naa di la way sang bi sab jaama solo day sang bi xaacu ngir di la way sang bi mbàkke yaay borom bi lang naa di la way sang bi sab jaama solo day sang bi xaacu ngir di la way sang bi mbàkke yaay borom bi yërmande manu may sang bi bindu way di ko way sang bi mbàkke yaa jara way sang bi mbàkke yaay borom bi dina fi ko fi ñëw sang bi ba dem xamaloo sang be sa borom jamono sànk nga mbàkk yaay borom bi yàlla si melokaan sang sang si Saliou Mbacké yaay borom bi loo si melokaan sang be yàlla isaab ba Mbacké yaay borom bi sëñ Bamba dafa ñëw sang bi si sang bi dafa jamaam la ko ne sang be da jamaam lanu ko waye bakki ay borom sunu sak waaw soxna Ayda sunu sak soxna sunu sak waaw soxna Ayda sunu sak soxna sunu sak waaw ne namooti jamaam lanu du ko gis sang bi waaw sang be si Saliou bakki ay borom bi yàlla si sang bi moo yande ka yoo yàlla bi waaw sang be bi Bamba dafa ñëw sang bi ñaan si nu raw sang be xamkani awara Cheikh Saliou Mbàkke yaay borom bi dem na géej jëliyem sang bi tubaab yi ak seen i maam sang be galul tarayul sang bi sanc Mbàkke Bawal. sëng bi xéewal yi saxawal. sëng Bamba nunu yaa ngi dawal. Mbàkke Bamba du fi jug. sëng bi des galamu doon. Bamba moo di sëriñ Saaliwu. Mbàkke yaay borom. di kamal. sëng bi leer ne am. sëng bee moo tuddee wu ko doon sëng mi mu jël. def jamam lu ko neex. nee na moo ti jamaam nanu ko way bakki bi ay bët du ko gis lamb sax du ko daj yërmande moo lay buri mbiram bakki ay borom bi adina fii ku fi ñëw sang bi lu ba dem sang bi sa borom jamono sang bi moo saama la yoo yàlla la bakki bi loo taxaytu kaloon jamono si melokaan saaku yàlla isa xarnu bi mbàkke yaay boro sëñ bamba dafa ñëw sang bi si yàlla waaw sang be awara sang bi mbàkke yaay borom bi nagee joli sang bi baab yaa ak seeni maam sang be kalolu dara yul sang bi mbàkke yaay borom bi sang jëmbaaka bawal sa xeewal isa xawal sang be sëñ bamba nunu yaa nuyu bawal ah, mbàkke yaay borom sëñ bamba du fi jóg sang bi ay das gala mu doon sang be bamba maa di sëñ taalibu mbàkke yaay borom taaliba di kamal leer ga tax lu ne am sang be bu ko doon sang bi bakki yaay borom bi sang be ca mi mu jël sang bi mu jamaam la ko ne sang be moo di jamaam nanu ko way bakki yaay borom bi ay bët de du ko gis sang bi lamb sax du ko daj sang be ma de moo lay biri biram bakki yaay borom yàlla si melokaan Moussa Malabaloo noonam ya dëkk yoo yàlla la mbàkke yaay loo taxayitu ko loo. sëng bi dama doon si melokaan. sëng bi. sëng bamba dafa yaak selimaam. sëng bee la jalul tara yul sëng yaa nuy bakki yaay borom bamba du fi jug sang bi ak mu doon bamba moo di sëriñ saaliwu bakki yaay borom bi di kamal sang bi lu ne am waaw noppi teewu ko doon sang bakki yaay borom soxna ay demi mu jël sang bi damu jamaam ko neex bakki yaay borom ay bët du ko gis lamb sax ko daj yërmande moo lay buri mbiram Mbàkke yaay borom soxna Ayda sunu sak soxna Ayda mooy suñu tawfeex soxna Ayda sunu sak soxna Ayda mooy suñu tawfeex soxna Ayda sunu sak soxna Ayda mooy suñu doole soxna Ayda sunu sak soxna Ayda mooy suñu doole soxna Ayda sunu sak soxna Ayda ay sunu doole amiin moo ti jamaam nanu ko way Mbàkke yaay borom bi ay bët du ko gis sang bi lamb sax du ko waaw sang bi yërmande moo lay buri mbiram ak yaay baloon yàlla Muusa mala baloon noonam ya ndeke yoo yàlla la ak yaay baloon loo taxay tukaloon sàkku yàlla isaab xarnu ba mbàkke yaay borom sëñ bamba dafa ñëw sang bi si yàlla nu raw sang bee awara sang bi mbàkke yaay borom bi dem na gee juliyem sang bi bi ak seen imaam sang bee ganul tarayul sang bi mbàkke yaay borom bi soxna ayda sunu sag soxna ayda mooy sunu sag eh, waaw soxna ayda sunu sag soxna ayda mooy sunu sag eh, waaw soxna ayda sunu sag soxna ayda mooy sunu sag eh, waaw soxna ayda sunu sag soxna ayda mooy sunu sag waaw. soxna Ayda sunu sag. soxna Ayda mooy sunu sag waaw. soxna Ayda sunu sag. soxna Ayda mooy sunu sag waaw. soxna Ayda sunu sag. soxna Ayda mooy sunu sag waaw. soxna Ayda sunu sag. soxna Ayda mooy sunu sag waaw. soxna Ayda sunu sag. soxna Ayda mooy sunu sag waaw. soxna Ayda sunu sag. soxna Ayda mooy sunu sag waaw. nee na moo di jamam nanu ko way. bakki yaay borom bi. ay bët du ko gis. sang bi lamb sax du ko daj. sang bi. yàlla yi buri mbiram bakk yaay borom bi yàlla si melokaan sang bi moo saama la borom waaw sang bi noonam yandi ka yoo yàlla la bakk yaay borom bi loo taxay tukaloon sang bi jamanam si melokaan waaw sang bi saak yàlla isaab xarnu ba bakk yaay borom bi sang bamba dafa ñëw sang bi ñaar si yàlla nu raw sang bi xam jami awara sang bi bakk yaay borom bi dem na géej tuliyem sang bi tubaab yi ak seen imaam sang bi lu tare yoon sang bi bakk yaay borom borom bi sang jumaa ka bawal sang bi xeebal yi sa xawal sang bi sëñ bamba nunu yaa nuy dabal mbàkke yaay borom sëñ bamba du fi jóg sang bi ak des galamu doon sang bi bamba moo di sëriñ saaliwu mbàkke yaay borom bi saaliwoo di kamal sang bi leer ga tax lu ne am sang bi noo bu ko doon sang bi mbàkke yaay borom sang bi ca mi mu jël sang bi damu jamaam la ko neex sang bi na moo di jamaam lanu ko way mbàkke yaay borom bi ay bët du ko gis sang bi lamb sax du ko daj sang bi moo lay mbëri mag ñi yay borom soxna Ayda sunu sag soxna Ayda mooy sunu sag waaw soxna Ayda sunu sag soxna Ayda mooy sunu sag waaw soxna Ayda sunu sag soxna Ayda mooy sunu sag waaw soxna Ayda sunu sag soxna Ayda mooy sunu sag waaw soxna Ayda sunu sag soxna Ayda mooy sunu sag waaw soxna Ayda sunu sag soxna Ayda mooy sunu sag waaw soxna Ayda sunu sag soxna Ayda mooy sunu sag waaw soxna Ayda sunu sag soxna Ayda mooy sunu sag waaw eh, soxna Ayda sunu sag soxna Ayda mooy sunu sag waaw eh, soxna Ayda sunu sag soxna Ayda mooy sunu sag waaw eh, soxna Ayda sunu sag soxna Ayda mooy sunu sag waaw soxna Ayda sunu sag soxna Ayda mooy sunu sag waaw ah, nee na moo ci jamaam na lu ko way bakki ay borom ay bët du ko gis sang bi lamb sax du ko daj bi yërmande moo lay bëri mbirom bakki ay borom yàlla si bi sang be ndeke yoo yàlla la. mbakki ay borom. loo taxay tukaloo. sang bi jamonoom si melokaan. saaku yàlla isaab xarnu ba bakki yaay borom sëñ bamba dafa ñëw sang bi ñaar si yàlla nu raw sang bi jëli awara sang bi bakki yaay borom dam ne gay jëli yem sang bi tubaab yaak selimaam sang bi la jëlul tarayul sang bi bakki yaay borom sëñ jumbaaka bawal sang bi xeewali sa xawal sang bi sëñ bamba nu nu yaa nuy dawal bakki yaay borom sëñ bamba du fi jóg sang bi ak das galamu doon sang bi bamba moo di sëri saaliwu rakk yaay borom saali woo sang beeg ga tax lu ne am sang ko doon sang bi mbàkke yaay borom sang bee ca mi mu jël sang la ko neex nee na moo di jamaam lanu ko way mbàkke yaay borom ay ko gis sang ko daj yërmande moo lay buri mbiram mbàkk yaay borom si melokaan sang moo saama baloon sang be ndeka yoo yàlla la mbàkk yaay borom bi loo tukaloon sang bi malam si melokaan sang be saatu yàlla isaab xarnu ba mbàkk yaay borom sëñ bamba dafa ñaan si yàlla nu raw i xami jami awala sang bi bakki yaay borom dem liggéey juliyam sang bi tubaab yaak seen sang bi galul bawal sang bi xeemali xawal sang bi nu yaanu yi dawal bakki yaay borom sëñ bamba fi jug aji das gala doon bamba ma di sëriñ saaliwu mbàkki yaay borom bi soxna ayda sunu sag soxna ayda mooy sunu sag waaw soxna ayda sunu sag soxna ayda mooy sunu sag waaw soxna ayda sunu sag soxna ayda mooy sunu sag waaw soxna ayda sunu sag soxna ayda mooy sunu sag waaw soxna ayda sunu sag soxna ayda mooy sunu sag waaw soxna ayda sunu sag soxna ayda mooy sunu sag waaw soxna ayda sunu sag soxna ayda mooy sunu sag waaw soxna ayda sunu sag soxna ayda mooy mooy sunu sag waaw. Eh, soxna Aida sunu sag. soxna Aida mooy sunu sag waaw. Eh, soxna Aida sunu sag. soxna Aida mooy sunu sag waaw. soxna Aida sunu sag. soxna Aida mooy sunu eh, soxna Aida sunu sag. soxna Aida mooy sunu sag waaw. nee na moo jamaam nanu ko way. bakki yaay borom. jërëjëf Atis jërëjëf jërëjëf Thioune jërëjëf Thioune. jërëjëfati Serigne Bethio allo jërëjëfaat Serigne Bethio waaw mbég mi day woy Assane Salam bismillah waaye nañ ko may loxo waay Assane Salam soxna Aida Saliou yàlla fi yàgg lool te wér xanaa xamoo leen bu ma doon ba may jigéen amul ci yoonu sëñ Bamba kon farlu leen xanaa xamool waaw waaw su doon góor ah, ba may jigéen ba may jigéen amul ci yoonu sëñ Bamba leen xanaa xamoo leen ah, bu doon góor ba may jigéen ba may jigéen amul ci yoonu sëñ Bamba kon farlu leen xanaa xamoo la su ma doon góor ah, ba may jigéen ba may jigéen amul ci yoonu sëñ Bamba kon farlu leen xanaa xamoo leen ah, bu ma doon góor ba may jigéen ba may jigéen ah, amul ci yoonu sëñ Bamba kon farlu leen ma ne xanaa xamoo leen su ma doon góor mbaa may jigéen mbaa may jigéen amul ci yoonu suñu bamba kon farlu leen déglooti leen ma sama gaal yi ma fàttale li ngeen warul fàtte ma jottale xanaa xamoo leen su ma doon góor mbaa may jigéen mbaa may jigéen amul ci yoonu suñu bamba Tuuba kon farlu leen jàngal ma suuratul azab xalam bur yàlla ma ni ko rek jigéen a yam ca ndigal yaa amul ci yoonu suñu Bamba konu farlu leen jagal ma suuratul azab xalam bur yàlla waawaaw ma ni góor ak jigéen a yam ca biir ndigal yaa xanaa xamoon su ma doon góor ci yoonu suñu Bamba kon farlu leen ku la ci man day moo la man ah! du sa morom sëñ Bamba ne ku nekk sa ku la ci man day moo la man ah! du sa morom sëñ Bamba ne ku nekk sa jëf mooy sa morom ah, xanaa xawoo eh, eh, suma doon góor ma may jigéen may ah, jigéen awul ci yaanu suñu maa gën a farlu leen eh, jigéen a tax tey lépp lu am am tey li am jamaal a jaam woon ba lépp am xanaa xamoo leen suma doon góor ma may jigéen ma may jigéen farlu si yoonu sëñ Bamba kon farlu leen sëñ Bamba ne waaw waaw jamaalu baaxin kaana lii te kabila masaxatin wa saana lii xanaa xamool suma doon góor ah, ah, mbaa may jigéen amul ci yoonu suñu bamba kono farlu leen sëñ bamba ne jamalu baaxin kaana lii te kabila masaxatin wa saana lii. xanaa xamoo. waaw waaw su ma doon ci yoonu suñu bamba kon du falu. Eh, sëñ bamba lu baaxin kaana leen ba ku la ci day moo la man eh. ku la ci day moo la man du sa morom ku la ci man day moo la man du sa morom si Bamba ku nekk sa jëf mooy sa morom xanaa xamoo suma doon góor maa may jigéen maa may jigéen amul ci yoonu suñu Bamba ah, kon farlu leen e muslimina muslimatil muminin muminatil soxna ay day muxsina muslimina muslimatul muminin eh, muminatil soxna ay day muhsina ah, muslimina muslimatil muminin muminatil soxna ay day muhsina muslimina muslimatul mumini muminatil soxna ay day muhsina ah, xaanitina xaanitatin ah. saadiqin wa saadiqatin moo dëggal ba jiitu leen muslimina مسلمات المؤمنين مؤمنات سخنا أيداي محسنا خانتين وخانتات صادقين وصادقات مودقل بجيت لي مسلمين muslimatul mu'mini mu'minatin soxna ay day masina wasaimina alaimatil khasiin wa khasiatin soxna ay darawna leen muslimina muslimatul mu'mini mu'minatin soxna ay day masina afizina alafurujihim wa afizat amul takki aw te léppam day muxjisaat muslimina muslimatun mu'minin mu'minatin soxna ay day moosin wa saayimina saayimatin xaasin wa xaasiratin soxna ay daraw na leen muslimina muslimatin muminin muminatin soxna ay day moosin wa sakirina law kasiran sant leen jërëjëf cun ñu boole soxna ay da cun wa sakirina law kasiran sant leen jërëjëf cun big nu léeg yaa ay da cuun aka sellu lool waaw aka mandu lool waaw du janne du war dara du gadde du lore aka neexa bëgge ñolo bëgg waaw lun ci ko begar ko sona ay da dunu gob dunu gar aka sellu lool waaw aka mandu lool waaw du war tere du ko dee du lore ak a neex a bëggee ñoo la bëgg waaw ci góode gar go yaa ay dañoo la bëgg du nu gar aka sellu lool waa aka maandu lool waa ah, du janee du war tere du ko dee du lore ka soxna Ayda ñoo la soxna Aja aka sell lool. Ah, aka maandu lool. waaw. Ah, du janne du wër. déedéet du gëddee. Ah, du lore aka neex bëggee. ñoo la bëgg. waaw lum ci ko be gargo. soxna Ayda ñoo la soxna Batoor aka sell lool. kama du lool waaw du janne du wor du gëdde eh. du lore aka neex a bëggee ñoo la bëgg ñun waaw lu ti ko begarul ko sonaay la bëgg du nu gar aka sellu lool waaye aka maandu lool waaye ah, du janne du wor déedéet du gëdde ah. du lore aka neex a bëggee ñoo la bëgg ñun lun ci góor ay doj ñoo la bëgg ay waayi Mbàkke yaa di sa sa lay ki gën ay waayi Mbàkke yaa di sa sa lay ki gën ay waayi Mbàkke yaa di ndam sa salay ki gën na ñun li nu am cey ku ka dootuloo selaw ñun li nu am cey ku ka dootuloo selaw ñoo yay sax di la feccal dootuloo selaw ay waayi Mbàkke yaa di ndam sa salay ki gën na ay waayi Mbàkke yaa di ndam sa salay ki gën na ñun li nu am cey ku ka dootuloo selaw ñun li nu am cey ku ka dootuloo selaw selaw ñoo la feccal talatu noo selaw yaa woor weeru day dëgër gën na yaa diggani ñun dunu la yoo keroog ca taba yaa diggani ñun dunu la yoo keroog ca taba ñun ñooy ñi dëkk ak jëm ah talatu noo selaw jariñ nga sax ku dul lore sa san lay ki gëm na sa noon sax danga koy teral danga wax lu ñaaw sa noon sax danga koy teral danga wax lu ñaaw sa noon sax danga koy teral danga wax lu ñaaw sa noon sax danga koy teral teral doo ko yaa baax yaa manal ku ne talatu bul juum sax ba koy tudd sa san lay ki gën benn teg te keneen bokkaale la kenn melul ne la kenn melul ne moo ki ma tee sambay mbayaan talatu noo ji lani sago sax san lay ki gën ku bëgg sëriñ bee coo jugal yëngoos ku bëgg Serigne Béthio jugal yango waaw yaay dangine ku bëgg Serigne Béthio yaa ngi nii mooy taaru Serigne Touba oh, bun doonu wane cant gi léegi réew mi raw jëm kanam waaw sawan baawan ndaxte yaay dëgg la ndaxte yaay dëgg la ah, ay waayi njariñu jàmbu ne ah, ay yaay njariñu jàmbu ne moo waaw jëf sax leer na nañ nak raw na ab tere sin bee jogay seetaan seetaan télé gis li nga def ak liñ la defal kay seetaan télé moo tax nan nu may délé waaw waaw jëf sax leer na nañ na raw na ab télé mbeejo kay seetaan télé gis li nga def ak liñ la defal kay seetaan télé cër bi cërub yàlla la cër bi cërub yàlla la cër bi cërub yàlla la cër bi cërub yàlla la cër bi cërub yàlla la yaa ay da léppam de yàlla la cër bi gan la nin bee jo kay seetaan télé gis li nga def ak li ñu defal kay seetaan télé max nan may délé nga jëf sax leer na nañ na ab télé waay kay seetaan télé gis li nga def ak li ñu la defal kay seetaan télé eh, cër bi cërub yàlla la la cër bi cërub yàlla la la cër bi cërub yàlla la yaa ay da léppam de yàlla la cër bi benn la si bee jo kay seetaan gis li nga def ak li ñu defal kay seetaan télé wax leen Mbàkke yaa mën a dimbile bon bon yaa nu ci jële Mbàkke yaa mën a dimbile bon bon yaa nu ci jële a dimbile doon la war mooy sax naan jaajëf ku bëgg sëriñ bee co taxaw njukkal ko jaajëf li ma wax ñëpp la war ñëpp war naan jaajëf ñëpp la dimbali ki moo di ndaanaan jaajëf ñëpp ka war baax Serigne jaajëf ah, borom xel jaajëf ah, Daaru Salaam jaajëf Daaru Marnaan jaajëf Usnul Maab jaajëf Nat Amin jaajëf Alimul Xabir jaajëf sangub Serigne Béthio yàgg nga daan jaajëf yaa mën a dimbile bol bol yaa ci jële Mbakke yaa mën a dimbile kañ naa jaay buru buri i ñëw naa mbàkke balla mooma mbàkke yaa mën a dimbale kon balu yaa nu ci jële e ku mu doon la war mooy sax di naan ku bëgg sëriñ bee ca taxaw njukkal ko jaajëf li a dimbali ki moo di naan jaajëf ñëpp war a wax sëriñ Saaliw jaajëf warawa sëriñ saaliw jaajëf borom xel koom jaajëf daaru usnul maab jaajëf nadbul amin jaajëf maalimul xabiir jaajëf sangub sëriñ beejo yàgg nga daan jaajëf mbàkke yaa mën a dimbile bon bon yaanu ci a a dimbile bon bon jëlee la war mooy sax jaajëf ku bëgg soxna Ayda Saaliw nel ni sa loxo jaajëf li wax ñëpp war ñëpp war naan jaajëf ñëpp dimbali ki moo di jaajëf ñëpp ka wax Sëriñ Saaliw jaajëf borom xel jaajëf daaru salaam jaajëf daaru marnaan ah, jaajëf usnul maab jaajëf nat bul amin ah, jaajëf alimul xabiir jaajëf sangub sëriñ Béthio yàgg nga daan jaajëf sant naa la daan sant naa la daan ah borom daaru salaam borom daaru salaam du moom lépp moom lépp sëriñ Saliwa soxna Ayda dëggi dëggi sëñ bee colaa jox nañ bi ak yi cay lépp yaay boroom jëlal jëlal jëlal fabal jëlal man yaa moom sant la yaay daan sant la yaay daan cay borom daaru cay borom daaru salaam kenn du moom lépp mooma sëriñ Saliou moom lépp mooma sëriñ Saliou soxna Ayda dëggi dëggi sëñ be cola jox la xol bi ak ruugi cay lépp yaay baroon jala jëlal fobal fobal waayi fobal Cheikh Ibra Fall lépp jooja koddu faali njaayi ma farma daawur yaasin mi ci faal Cheikh Ibra Fall lépp di wax say mbuus di yulli say poos gijal doo noos mas ngeen ko fee gis Seex Ibra laa wax gi moo tax mooy mbotu wi cax tontul bul ñus yandu ci karkar fanaan ci sikar yandu ci karkar fanaan ci sikar yandu ci karkar fanaan ci sikar Seex Ibra Faal jooja ko du faalin njaay ma far daawur yaasin mi ci mbul faal ana baay faal yee jaayu leen ana baay faal yee jaayu leen ku bëgg sere faal jugal jaayu jaayu leen ana baay faal yee waaw jaayu leen faal yee jaayulee soxna Ayda Saaliw Rafaal moo ko wan wi waaw ana bàyyi faal yee jaayulee ana bàyyi faal jojo koddu faal yi njaay ma daawur yaasin me ci mbul faal di wëq say mbuus di yulli say poos géjal te doo noos mas gën ko fee gis Seex laa wax ki junju moo tax mooy mbotu wi cax tontul te bul ñus yandu ci kër-kër fanaan sikkar yandu ci kër kër kër kar yendu ci kër kër kër fanaan si si kar soxna Ayda Saaliw yaa bëgg maam Cheikh Rafal soxna Ayda Saaliw bay faal bee bay faal bee ana ñu bëgg soxna Ayda Saaliw def seeni baaraam ana bàyyi faal yee jaayu leen ana bàyyi faal yee jaayu leen ana bàyyi faal yee jaayu leen ana faal yee jaayu leen yoon wi ni ko yoon waa ngi nii yoon waa ngi nii doxal doxal doxal cuun yoon waa ngi nii booba la leeral yoon wi yoon waa ngi nii eh, booba la leeral yoon wi yoon waa ngi nii foo jaar yoon la cuun yoon waa ngi nii ni nga bëggee seex rafal wér na su ma kay way nga jug fësal mbég ma yoon waa ngi nii loxo ca kaw loxo ca kaw loxo ca kaw ana baay faal yee ñoo ngi nii soxna Ayda Saaliw baay faal baa ngee ñoo ngi nii Amad Fall Sayer Njaay Biram Jabbo nga ca Ngaay Fall bay naru dégg na Fall ma far ma Yasin Dawur mi ci mbul maam seera faal cowli cowli yawa eh, amat faal seer njaay biram ñebo nga ca ngay faal bay naru dégel faal ma farma yasin dawur mi ci mbul maam seera faal cowli cowli yawa amat faal seer njaay biram ñebo nga ca ngay faal bay naru dégel faal ma farma yasin dawur mi ci mbul maam seera faal jolli jolli yawa ah, ana baayi faal yee jaayule ah, ana baayi faal yee jaayule ah, ana baayi faal yee jaayule ana baayi faal yee ana baayi faal yee jaayule eh, soxna Ayda Saaliw waaw Seex Rafal moo ko wan yoon wi ni waa ngi nii. yoonu waa ngi nii. ni waa ngi nii. nii eh, eh, eh, fo jaar loxo ca kaw loxo ca kaw loxo ca ana baay faal yee ku bëgg Seex Ibra jugal yëngu ci Amadou Fall Amadou Fall Sër Ndiaye Amadou Fall Sër Ndiaye Amadou Fall Sër Ndiaye soxna Aïda Saliou Baye Fall baange ah, moo ngi nii eh, Amadou ma far ma Yacine Dawour mi ci mbul mam Seera Fall sëriñ Béthio ka fal min def du tee gëm ko ñun ma ñëw soxna Ayda kuy mer ci ay ndaamam danga beegul ci sëb sëriñ ndax bu ni nelaw mu ub këram waaw waaw di wut ngërëm tax na mu am mbégum sëriñ Béthio faf di jëmam fu mu dégg ndam daldi fa dem sëriñ Béthio la gëm sax ci jëfam toppi waxam tabbi xolam ki ay mbiram kum fi ëlëm danga gëlëm jéemal xalam lam jëf ba am mbooti sangam soxna su gëm ab sëriñam aw ndigalam moom du gëlëm leeru ngërëm lay gise ndam ndax dagana kay am ngeenu way wu dootu fay seen dooma way bandi koroy ci wut ngërëm ndax baax bëri fayda mooy soxna Ayda yiw tabe tedd loo yor mu jur ndam ana sapay soxna Ayda saaliw ndax baax bëri fayda mooy soxna Ayda yiw tabe tedd loo yor mu jur ndam sëriñ Béthio kafal mbindeef du tee ñu gëm ko ñun soxna Ayda kuy mer ci ay ndaamam danga beegul ci sab sëriñ sëriñ Béthio kafal mbindeef du tee ñu gëm ko ñun soxna Ayda kuy mer ci ay ndaamam danga beegul ci sab jiitoom ga mooy mbégum sëriñ Béthio ku gëm nangul soxna Ayda ku ko weddi daa i du tee soxna Ayda saaliw di sëriñ ndax ki ci ab dëkkam yor mayam di jëf lu wér yor taalibeem yu gëm du sentu fenn ay njariñ fex mbër mu yàlla fal coonaak yu bon la lay jural jëm leena maandu kon te bàyyi noog sunub sëriñ jëm leen maandu kon te bàyyi sunu sëriñ a jëm leen maandu kon te bàyyi sunu sëriñ wàcc lal yee bàyyi kilim yee dugg ci àll bee wane sëriñ bee ndax dem na saare Moussa dem na saare Modi dem na saare dem na Kocaari dem na Goudiri dem na Kidira dem na saare Sunkaru dem na Jawbe ana soppey soxna Ayda Saaliw sa genn jigéen ji man junni góor ki demoon male ko di waar fu mu romb toj ko tasar ana soppey soxna Ayda Saaliw waaw sa jigéen ji man junni góor ki demoon male ko di waar fu mu romb toj ko tasar ana soppey soxna Ayda Saaliw ki man ci màggal gi waaw man ci gàmmu gi man ci daara yi. waaw ban naan daara yee. ndayu daara ci daara yee. ban naan la daara yee. ndayu daara yee. daara yee. ban naan la daara yee. man ci daara yee. man ci daara daara yee. ndayu daara yi. soxna Ayda Saliou Thioune. waaw këram la daa buub lay bale ëttam di saytu waa ñam balaq ay ndam waaw xolam balaa neex alal judul jeex mu fab ko jox cheikh becco may borom ndam barke dëggi dëggi moom mi tax sunu mbir yi suuxul soo xewul barke dëggi dëggi barke dëggi dëggi moom mi tax sunu mbir yi suuxul soo xewul barke dëggi dëggi mbokki taalibe yi sang bi nee na ñi bëgg siyaare nañu yegsi sang bi nee na ñu bëgg siyaare nañu yegsi te ñu ñëw fii siyaare barke dëggi dëggi moom mi sunu mbir yi suuxul sooxe. waaw barke dëggi dëggi. barke dëggi dëggi. moom mi tax sunu mbir yi suuxul sooxe. waaw barke dëggi dëggi. moo gën a gaaw ñam ko kon nga yem. sëñ bi waaw barke dëggi dëggi. Eh,